tawa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 asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa mbokki M Media Group Nuuru Daarayni ñu ngi sant yàlla subhanahu wa taala di julli ci yonentem boobu sallallahu alayhi wa di leen ziyaare di leen ndokkeel di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu jéggal ñu suñu rëcc-rëcc te nu nga ñu suñu jaamu yàlla ñu di leen ndokkeel nag ci weeru seddal wi nu nekk weeru tedd wi weeru barkeel wi weeru teraanga wi ñaan lépp luñ ci jaamu yàlla rek yaanan ko yàlla nungul bi jaay seydina muhammad sallallahu alayhi te defal na ci ay teraanga yu koy suñ njort àdduna ak alaxira fajal ci suñu aju zahiran wa batinan bi jaay seydina muhammad sallallahu alayhi wa waaye tamit jéggal ñu ci bu baax a baax lépp luñ def rek mu doon lu wuteeg bëgg-bëggam yal nu ko jéggal baal ko li nu xam li xamat li nu taay li nu tayut li nu yëg li nu yëgut li nu def ak li nu defagut lépp rekk ci lu ko neexu rek lu mën a doon rek yal na nu ko jéggal moom mi nga xam ne mii borom ak jéggal la borom ngëneel la euh, borom yërmande la euh, te dara ump ko teyit lu ko soob lay def noo ngi dellu di ko kennal di toroxlu ci kanamam di ko ñaan rek lu ci mën a rek mu jéggal ñu ko di jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa di jël néew boobu nag ak ziar bi rek di ko teg ci loxo suñu kilifa gi ak Cheikh Abdoul euh, di ñaan yàlla gën ko yàggal ci suñu kanam bu baax a baax a baax waaye tamit di ko ndokkeel ci weeru sellu tedd wi ñu nekk te nekk ci bésam yu mujj yi nga xam ne yi euh, xiwal yi da ciy gën di dolleku ñeel jullit ñi di ko ñaan yal na ko yàlla yàggal suñu kanam bu baax a baax ba leen bëgg liggéeyal maam Cheikh Balla Coro Mbàkke ci yoonu Cheikh Ahmad Bamba yi mu mëne nu ko njortam te nu ànd ko moom mu jot ñu ko mboolem mbokk yi ci biir groupe bi yëpp rek góor ñeeg jigéen ñi ñëpp rek ñoo leen di ziar di leen di ñaan yàlla doolu ñu defal tawfiq bu baax a baax barkab Seexul Xadim kon tey xam naa ñuy jéem a bi ci liggéey bi rek di xool yenn ti laaj yi nga xam ne yi mbokk yi rotal da ko fi laaj bi ñu am tey bi ci jëkk <coughs> laaj bi ci jëkk muy sëriñ bay Jaañ mexe làmbaay moo ko fi yónnee kilifa ñoo ngi koy ziar bu baax a baax di ko ndokkeel di ko xamal ne kon namm nañ ko lool gëj nañ koo dégg ci biir groupe bi waaye xam naa yittee jamono ji rek waaye xam nañu yitteem ak bëgg-bëggam bëggam lu baax yittewoo lu baax ak pëstéefam waaw moom dafay laaj xukkumul murdiati wal xaamili bi nisbati moom dafay laaj ki nga xam ne kii dafa toll ci am gone koo xam ne gi day nàmp moom bu demee ba ragal ne bu nàmpalut gone gi ngir koor gi gone gi dajay loro lan moo di parteem waaye tamit ki nga xam ne kii dafa tollu diggante maanaam ëmb te wóosina gut moom itam su ragalee loolu la ci biir bi euh, su wooree moo lor ko moom itam lan moo di àtteem dañ ko naan almurdiatu ida xaafat alal waladi aftarat wa yajibu alayha alqadaau wal itaamu inda almalikiyati wal xaamilu tuftiru wa taqdi wala itaama alayha su ko defee ñaar ñooñu ñoo bokk àtteeb ñoom ñépp bu dee nàmpal la nàmpal gi tax mu bañ a woor wala ki ëmb ëmb bi tax mu bañ a woor ñoom ñoo bokk àtteeb maanaam koor gi du leen wàcc waaye day doon bor boo xam bi dañ koy leb suñ demee ba yooyu jàll euh, dañ koy fay waaye fiñ tàqaloo rek ci wàllu fay gi mooy ki nga xam ne kii day nàmpal su ragalee ne bu wooree gone gu am lu mu nàmp te gone gi dina ca loroo charia may na ko mu bañ a woor waaye itam euh, bu koor gi jeexee ba mu ba xale bi dëgër ba mën a am lu mu lekk ak yooyu maanaam euh, nga xam ne ñàkk nàmp ga dootu ko lor su boobaa da ko war a fay waaye itam da caa war a boole di joxe aw ñam muy mudd boobu ñuy wax nga xam ne da ko cay boole kon daal kiy nàmpal moom may nañ ko mu bañ a nàmpal eh, may nañ ko mu bañ a woor waaye tamit lu ko raw ca koor ga da koy fay waaye tamit da cay boole di joxe aw ñam muy mudd ba nga xam ne bii da koy lim eh, fan yi muy fay rek nu mu toll mu joxe lu toll noonu ci ay mudd loolu la maalikee yi wax ci ngiram imam malik lañ ko sukkandiku waaye tamit ki nga xam ne kii dafa ëmb amagul doom moom tamit charia may na ko mu dog waaye day fay waaye moom duñ ko teg ne ko euh, da joxe euh, mudd moom maanaam moom du itam du joxe aw ñam moom ki dañ ko naan moom itam may nañ la nga dog rek waaye itam da ngay fay nag waaye it eh, moom ki ëmb daal teguñu ko ca ne ko da ngay joxe aw ñam muy mudd boobu nga xam ne bii moom la ñu teg kee nga xam ne kii day nàmpal beneen laajam bi muy laaj moom suñ mbay jaan lu aju ci asaka murum koor comme ni ko olof yi di waxe ñuy wax zakatul fitri mu doon ponk bu am solo boo xam ne bii eh, jamono yi ñu toll nii war nañ ko bàyyi xel bu baax a baax euh, ndaxte dafa am solo lool loo xam ne lii bu ñuy xool mu doon ay tomb yu baree bari yoo xam ni moo ci aju waaye kon dañuy wax xukmuha maanaam lan moo di àtteeg asakaay muurum koor doon ko naan xukmuha zakatul fitri waajibatun maanaam ab atte moom mooy lu war la loo xam ne lii jullit bu mu mën a doon rek euh, soo wooree ba koor gi bëgg a jeex bala ngay julli ji maanaam boo ko mënee day war nga euh, génne ko joxe ko waaye tamit lañ cay tegtaloo ci ne dafa war mooy ad dalilu ma rawaahu cheykhaani an ibni omara qaala farada rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama zakatal fitri waaw kon asaka murum ko moomu liñ ci tettaloon dafa war mooy xaddis bi nga xam ne bii jël nañ ko ci ash-shaykhaani muy buxaari yi ak muslim ñu jële ko ci ibnu omar mu ne seyduna muhammad sallallahu alayhi moo farataal azakaam muurum koor kon loolu ci la ñuy tegtaloo ne kon jëm Seydina Muhammad moo ko farataal teg ko kon day doon la xam ne lu war jullit bi la mu war koo mën a génne bu fekkee ne dañuy wax ci wàllu atteeb azakaay muurum koor tey bu ñu demee ci alxuraanul karin yàlla dafay wax ne di wax ak Seydina Muhammad ne ko xul min amwalihim sadaxatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha da ko ne yàlla dafa wax Seydina Muhammad ne ko na nga jël ci jullit ñi ci seen alal yi loo xam ne la ab sarax la lay doon boo xam ne bii danga leen cay laabal waaye itam danga nga leen cay sellal kon daal atte bi mooy dafa war euh, la cay tegawaat it beneen tomb muy miqdaaruha mooy nan la asaka mburum koor di war a toll dañuy wax ne maanaam asakay mburum koor boroom xam-xam yi ñuy jàngale fiqh dañ cee wuute lool waaye it bi euh, ñuy gëstu ci fi ñuy jële euh, yeneti euh, leçon yi yeneti ñu ñu tegtaloo mooy dañoo gis ne comme lu mel ni ngërëm imam Malik daanaka ci la ñu gën a tegtaloon ndax saa bu mu wutee amee rek ñoom dañuy dañuy daal di dellu foofa xool luñ fa wax ñoom ñu nu ma jël wax jooja rek daal di koy teg kon asaka mburum koor daal ni mu war a tollu dañ ne képp koo xam ne kii euh, war nga koo génne rek maanaam ñaari kilo ak ab liibar lay doon ci la nga xam ne ni moo ëpp ci yow gox ba nga nekk la ñuy dunde ñaari kilo ak ab liibar bi ñu liir di jàng téréb seeni choy bu mbàkki boobu it moom lii la fa wax ne ne asaka mburum koor daal ñaari kilo ak liibar la ñeel képp koo xam ne kii war na la su ko defee day wax itam waxtu wujubiha kañ la kañ lañ ko war a génne dañ ne waxtu wujubiha aaxiri yawmin min ramadana aw fajri aw fajru awali yawmin min shawal aw yawmayni qabla al waxtu wiñ koy génne itam boroom xam-xam yi dañ cee wuute ndax am na ñoo xam ne sax dem nañ ba ne saa bu weer wi teru rek muy weeru koor wi ku war a génne murum koor bu la neexee mën nga koo génne xam nga ñooñu moom dañ ko daal di teela dañ koo teelal lool waaye tamit euh, liñ ci gën a jàpp daal muy li gën a siiw mooy ne nañ bés bi nga xam ne bii moom mujj ci weeru koor wi bés boobu ne ne euh, boo ko ca mënee génne baax na wala soo ko ca mënta génne ci bés boobu buñ demee ba ne suba la kori fajar googu nga xam ne gi mooy jubal maanaam mooy jaar ci digganteeg ñu xëy julli ji julli korite gi ne ne fajar googu daal maanaam foofu itam bokk na ci waxtu yi nga xam ne yi mën nañ ko fa génne waaye tamit dafa am ñoo xam ne dañ ne euh, su la neexee bu koor gi desee ñaari fan mën nga ko génne kon daal dañ ci dégg ne ku ko man euh, loo ko mën a teel a génne ci biir weer wi rek euh, day mel ni ci lay gënee ndax nag booy xool ñi nga xam ne ñi ñoom lañ koy jox soo xaaree ba ñu ne suba li ñu julli ji wala nga xaar ba bët set bu boobaa daanaka euh, duñ ko mën a jëfandikoo te xañ na du fekk ni euh, jekku nañu lu ñu war a mën a taxawe ci bés ak feet googu kon daal dañuy jàpp ne moom lu mu te lu mu teel rek nga génne ko jox ko ñi nga xam ne ñi ñoo ko yoyo te ña ci gën a siiw ci ñu ko yooyu mooy ñu ñuy wax ay alfuqara wal masakin ndax bu ñu lim ñu yooyoo jole ñu jox leen sarax wala asaka dañoo nekk juróom-ñett waaye defe naa ñi ci gën a siiw rek mooy alfuqara wal masakin ba tey beneen tomb boo xam ne bii bu aju ci asaka la mooy xikmatuha maanaam njariñ li maanaam asaka lan lay jariñ ki nga xam ne kii da koy génne dañ ne tathiru saaimi min allaxwi war rifqu bil fuqaraa yi dégg nga ne bokk na ci njariñ li tax Seydina Muhammad farataal ñuy génne muurum koor ne e, muurum koor day laabal ki nga xam ne ki da woor ci ay caaxaan yoo xam ne mën naa am doon ko boole ci koor gi caaxaan yooyu ne su joxee muurum koor yooyu dañ ko koy raxasal faxasal ko ko jéggal ko ko waaye tamit bokk na ca njariñ ya mooy moom muurum koor muy yërëm ak dimbali ak jàppale woy ñàkk yi nga xam ne xañ na desu boobu bu ñëwee muy feet gi duñ ci mën a am loo xam ne lii moom la jëfandikoo comme yeneen jullit yi nga xam ne yi mën nañu ko kon daal loolu lenn la ci ay njariñ yoo xam ne yii bokk na ci di tax Seydina Muhammad daal di farataal muurum koor kon ci waxtu we mu doon wax nag ngir ñu mën ko caa joxe sallallahu alayhi wa sallam dane faman addaaha xabla salaati fa hiya zakatun maqbulatun wa man addaaha baada salaati fa hiya sadaqatun min as-sadaqaati kon dañoo war a góorgóorlu ba nag lu mu yéex yéex ci joxe gi bala ñoo julli ji julli korite gi ku ko war a génnee na nga ko fàggu daal di koy génne bala ngaa dem julli ji ndax sallallahu alayhi wa ne koo xam ne kii joxe nga asaka muurum ko moom daal njëkk ngay julli ji ne bu booba moom asaka lay doon waaye tamit ku xaar ba julli julli ji ba ñëw dëkk koo génne di ko jox ab sarax la rek boo xam ne bi dañ koy jàpp ne ab sarax la rek su ko defee nag diggante asakaay muurum koor ak ab sarax comme nii mu ko waxee ne ku ko joxe bala ngay julli ji mu doon asaka muurum koor waaye ku xaar ba julli ji ba ñëw nga dog koy joxe ab sarax lay doon dañ fi gis ne kon asaka mburum kon maanaam moo ëpp ab yool moo ëpp doole eh, bu dee dañ koy làngale ak ab sarax kon nañ ci góorgóorlu ba lu mu yéex yéex daal bala ñoo juddi ji daal nañu fexey génne ko ba tey ci tombab asakay murum koor muy laaj itam eh, ñan ñoo ko war a joxe maanaam man tuxraju anhu ci ñan lañ koy jëlee maanaam ñu war koo joxe dañuy wax ne almaru an nafsihi wa kullu man talzamuhu nafaqatuhu min zawjatin wa walidayni faqirayni wa dukurin ilal buluuxi eh, wa inaasin ilal zawaaji ne ne daal ñii ñoo ñi nga xam ne ñuy war a génne asakaay murum koor mooy nit ki ci boppam moo ko war a génneel boppam ak képp koo xam ne kii maanaam moo ko yorul moo ko yorul ab dundam maanaam moo koy dundal yow sa bopp ak ñi nga xam ne ñu yaa leen di dundal ñëpp buñ ko mënul yaa war a génneel asakaay murum koor muy eh, bu soxna la wala say soxna yaa war a génne say ñaari waajur itam ne ne ñu ko amut mënuñu ko yaa leen ko war a génneel waaye itam sa doom yu góor yaa leen war di génneel asaka muurum koor ba kenn ñuy mat maanaam kenn ñuy mesure ba mën a dem liggéey mën a am lu ñu génneele seen bopp waaye itam sa doomi jigéen yi tamit yaa leen war di génnewaale asaka muurum koor ba kenn ñuy dugg ci néegam say maanaam ba kenn ñuy am ay borom kër yoo xam ne yii léegi ñoom ñoo yore seeni dépense kon daal ci tënk rek képp koo xam ne kii daal yaa koy jox muy dund maanaam yaa yorob dépense am rek sooy génne asaka mburum koor euh, yaa ko ko war génne waleel wala it dana way juusu ixraajuha nuqudan dana it may nañ la euh, li nga xam ne lii dañu noonu asaka mburum koor dañ koy génne ci li ëpp ci li ñuy dundee ci gox bi nga nekk wala wala réew mi nga nekk masalan bu doon ceeb la wala dugub la wala mboq la wala bës la yu mel noonu ci lañu koy génne ne ne mën nga koo xayma bu dee di dugub la nga xayma euh, ñaata la dugub di jar ku nekk nga xaymaal ko ñaari kiloom ak liibar ba xam ñaata doon wala bu dee ceeb la ku ci nekk ci ñi nga war a génneel nga xaymaal ko ñaari kilom ak liibar ba xam lu muy doon ci xaalis su boobaa nga daal koy jox ñi nga xam ne ñii maanaam ñoo ko yooyoo ci joxe googu yi dañ ne su la neexee mën ngaa seet kenn ku ko yooyu nga jox ko ko waaye itam bu la neexee nga seet mbooloo moo xam ne yooyoo ñen yooyoo nañu ko nga seddale leen ko waaye beneen tom bi ci mujj di laajal muy euh, nit ki nekk ci béréb génne asaka murum koor jéggi fa ñooñee ko yoo dem di ko jox ñeneen ñoo xam ne ñii dafay weesu ñuy dem ca ña gën a sori di leen ko jox loolu la wax ak taaddi bi zakaat yi waaw ne ne al aslu adamu naqliha borom xam-xam ne daal dañ ne euh, murum koor daal la doon cosaanam la mu baaxoo woon mooy foo nekk foo ko boo ko génnee foofu nga ko war a joxe ñu nga xam ne ñu ñoo ko yooyoo tey ne ne wa huwa jumhurul fuqaha ñu loolu moom boroom ñuy jàngale fiq ñépp d'accord nañ ci ne daal béréb boo mën a nekk soo ko fa génnee su fa ñokka yooyoo nekkee foofu nga leen ko war a joxe waaye tam ne ne wa yajuuzu naqluha iza wujida udhrun ne ne toxal gi moom bala ñu la koy may fekk ne da am ngant ngant li nag lim ci joxe misaal mu ne ka adami wujudi fuqaraa fi biladil muzakki aw nadratihim lu mel ni nag fi nga nekk génnee fa muuram koor mi gisoo fa ñu ñàkk ñoo xam ne ñii euh, man nga leen koo jox wala ñu néew lool nga xam ne da nga leen di dañoo sorek yow te néew nañu ne ne su boobaa nag dinañ la may nga doog a jiggat dem euh, di ko jox ñeneen ñoo xam ne ñii ñoo gën a sori waaye ne nañ daal waaye fi nga ko génnee ñi ko yooyu buñ fa nee rek ñoom nga ko war a jox te am na fu sëriñ bi di waxe ne suma taaddi bi sadaxatin xalat ne ne yorob sarax daal di ko jéggit maanaam yor ko war koo joxe gus ñu ko yooyoo sës yow nga jéggi leen ko weesu leen fa daal di dem di ko jox ñeneen sëriñ bi ne loolu ak njuumte la kon daal bu fekkee ni mën naa jàppati fi nga ko génnee rek ña fa nekk yooyu ko nga jox leen ko am na yeneen laaj yu fi tàbb yoo xam ne yi suñu fàllu géey moo ko fi yónnee bu ko defee laajam boobu mu doon laaj moom laajam suñu mbay jaañ boobu rek maanaam ñoo bokk kon yaakaar na su digloo euh, laaj yooyu rek li nga xam ne ni moom la doon laaj te mooy lu jëm ci asakay moom koor moom nga xam ne nii moom la sëñ Mbay Jaañ doon laaj ñoo koy sant bu baax baax moom suñu fàllu gi beneen laaj bi ci topp sëriñ njaga caw moo ñu ko yónnee sëriñ njaga ñoo lay ziar bu baax a baax euh, moom dafay laaj lu jëm ci almujaddit maanaam dañu ne diine ji muy lislam bi nuy dund nii daa am ñoo xam ne ñi yàlla da leen di yónni ci yenn ti jamono yi Euh, ñuy ñëw di yeesalaat diine ji muy laañ na ñooñu dañuy nekk ci menn réew jullit yépp kooko nekk seen mu jaddit boobu wala réew mu nekk day am am mu jaddit muy kuy yeesal diine ja loolu it lañ ko ci tontu mooy xaala rasulullahi sallallahu alayhi wa ala rasi kulli miati amin man yujaddidu li hazihi l ummati amra diiniha maanaam loolu mu jaddit moom lu wér la lu am la lu sax la muy kuy ñëw di yeesal diine ji ndax sirna Muhammad ne ne yàlla day maanaam bopp téeméeri at bu nekk yàlla dina tànn ñoo xam ne ñu daleen di yebal ñu ñëw di yeesal diine ji ñeel xeetu seydna muhammad bi maanaam diine ji ni dundaal seydna muhammad ne ne saa bu téeméeri ak amee rek bu su téeméeri at ma jàllee rek bu amee yàlla dina tànn koo xam ne kii day ñëw yeesalaat diine ji su ko defee nag baat bi mu jëfandikoo fii ci ñi mu ci ci yónnee bi maanaam man yu jaddidu man gi man gi muy ñi jàng xam naa lool moom wàllu grammaire la arab naxu la man dañ ne ismul mawsul la waaye liñ ci jublu fii mooy lil itlaaq maanaam euh, dañu ko yaatal lool maanaam man man dafa yaatu man mën naa nekk kenn nit mën naa nekk ñaar mën naa nekk mbooloo maanaam loolu laa bëgg a wax ci man te ñi tafsir xadis bi itam dañ ne man gi mu jëfandikoo fii ci biir hadis bi te mooy man yu jaddidu ja doolu euh, ne kenn lañ ci jublu waaye mbooloo lañ ci jublu loolu tax ñu ne man huna yutlaqu ala fardin wa jamaatin ñu ne man gi euh, léeg-léeg dañ koy maanaam ma moomale askanale koo xam ne kii kenn la waaye itam mën nañ koo askanale mbooloo su ko defee loolu ci li may wax ne naxu la xam naa loolu moom ñu jàng naxoog yooyu lu mel ni ko daal suñ bay juuf geeg ñoom suñ oustaz Mourtala Mourtala Badiane oustaz Sadi Njing ak oustaz yooyu ñoo ngi leen di gis ndokkeel bu baax a baax ñoom dinañu xam li may wax nii maanaam man boo koy jëfandikoo ngir ma leen di gën a leeral li ne ñoom mën naa taxaw taxawaayu mbooloo ngir ñi nga xam ne ñi ay mujjadit la ñu doon mën nañoo doon mbooloo dañuy dama leen di jox misaal ci ne euh, jaa man yuallimuna buñ ko waxee ak jaa man yuallimaani naa ak jaa man yuallimuna naa ak jaat man yuallimna naa gis nga li may wax ni muy ci misaal ngir ñu xam ne mën naa doon mbooloo su ma ne jaa man yuallimuna ki nuy jàngal ñëw na kenn lay doon waaye mën na ma continuer jaa man yuallimaani naa ñaar ñu nuy jàngal ñëw nañu mën nañu wax ne jaa man yuallimuna naa ñu nuy jàngal ñëw nañu doon mbooloo mu góor waaye tamit mën nañu wax ne jaat man yuallim na naa jigéen ñu nuy jàngal ñëw nañu kon gis nga ko dañ ne man nag kon fii dañu jàpp ne mbooloo la kon li suñ njaga caw di laaj te mooy ndax mu jaddit day nekk kenn wala day noonu ñu bari daal buñ ci sukkandikoo dañu jàpp ne mu jaddit mën a doon ñu baree bari yoo xam ne ñii ñu bokk ci benn béréb boo xam ne bii fala ñuy falay nekk bu ko defee mu ne kon euh, euh, man yutlaqu ala fardin wa jamaa fa man lil jamay laa lil mufrad kon nga ne fii muy wax ci xadis bi daal la ñu fi jàpp ne man moom maanaam mbooloo lañ ci jublu waaye doonut kenn wa yasmulu kulla ahadin min al ulamai min hadihi al min man yaqumu bi fardil kifayati fi adaa il ilmi amman adraka min al salaf ila man yudrikuhu min al xalaf kon na ne e, mu jaddi daal ñu jàpp ne kon képp koo xam ne ki ay benn benn la ñuy doon ci boroom xam-xam yi maanaam ay benn benn la ñuy doon ci boroom xam yi nga xam ne ci suñu jamono jii ñu dund nii ku ñu gis ne maanaam mi ngi taxaw ci li ñuy wax fardul kifaayat yi fii ada ileen muy farata joo xam ne ji yàlla da ko teg jullit ñépp nga xam ne ñoom ñépp mënuñoo maasandoo di ko defandoo nga xam ne bu ca ñenn ña taxawee di ko def mu wàcc ñëpp waaye su ko ñëpp bàyyee ñëpp am bàkkaar muy jullit yi ne ne mujaddid day nekk ay benn benn ci borom xam xam ne yi ñooy taxawee ci wàllu doon ay borom xam-xam yu wóoruwóor te di ko leeral doomu aadama yi maanaam di ko jëlee ci xam-xam ya nga xam ne yi moom lañ jëlee ca mag ña waaye tamit di ko li ñi nga xam ne nii ñoom lañu maasee ci ñi nga xam ne ñoo fi wutu mag ñi kon loolu day bëgg a doon lu yaatu loo xam ne lii képp koo xam ne kii yàlla dogal na nga am xam-xam boobu te mooy am nga xam-xam ak diine bu wér cëng man koo leeral doomu aadama yi gox ba nga nekk dañ fay daal di mën a jàpp ne yow am mu jaddit nga ndax euh, diine ji moom euh, ñi nga xam ne ñi doonuñu boroomi xam-xam euh, nañ cay taxawe dëgg-dëgg saa su ne dañuy gis ne day manqué su ko defee nag lu mel noonu ña nekk doon boroomi xam-xam diine yu wér wér te e, yàlla def ci ñoom tawféex yi maanaam ñuy mën a leeral nit ña lépp loo xam ne lu leen lënt ci seen diine la ak lépp loo xam ne gis nañ ko ne ñu ngi koy def te maanaam mu doon loo xam ne xañ na bokkul ci diine mu doon loo xam ne xañ na ak ràpp la ci wàllu diine maanaam am màggat la ñu leen tey génne loolu dañ koy jàpp ak taj di la mooy ak beesal la su ko defee euh, bu ko defee kon euh, dafay wax ne wa haza mawjudun ila zamanina haza walilahi alhamdu te nee nag lii moom ci sunu jamono ji yàlla jàppandal na ko lool muy gox boo mën a dem ci àdduna rek yàlla teg na fa ay boroomi xam-xam yoo xam ne yii lépp loo xam ne lii lu nit ñi def la ñu mën koo jàpp ne ràpp ak diine gi maanaam euh, màgget ak diine gi am na ñu ko ñu ko mën a yeesalaat ngir joyanti nit ñi delloo lañ ca la nga xam ne lii moom la ñu war a eh, dunde ngir ñu mën a jaamu yàlla dëgg-dëgg yi na nga xam ne nii ñoom lañ koy war jaamoo yàlla kon daal mu jadd daal ci tënk li ci boroom xam-xam dëppoo ci tegtaloo ci xaddis bi mooy mën nañoo doon ñu bari ci ay réew yu faccantikoo yu sore yoo xam ne ku nekk mën nga am sa mu jaddit wala nga am ay mu jaddit kon ñoo ngi sant ñëpp su di dellu di sant yàlla subhanahu wa taala di leen ndokkeel di ñaan yàlla doon ñu defal tawfiq di jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Yo